al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi alladina astafa mbokk yi ci al ibaadatu wal xidma noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di des ci sunu jotaay bi ñuy faral di seq muy tontu ay laaj tey nag lu mat fukki laaj ak ñaar lanu fas yéene tontu bi ci njëkk mooy day wax ne yàlla xam naanu ne nuróowut leen lenn tey kenn waru ko nuróole ak lenn waaye nee na nit moom dafa jàpp ne xëy na moom ci boppam boppam lay wax kon moom mënut a ñàkk xalaat daal mel ne ku koy nuróole ak lenn. may ndax loolu daañ ko jéggal du doon lu ñuy jublu waaye daal day mel ne mënu caa mucc ah da koy daw rek nag da koy daw rek da koy daw nit moom xelam waaye nag mën nay mën nay mën nay mënanteeg xelam bu xelam naree jëm fu mu bëggut moom mu jéem a daw da ko jéem daw rek di muslu di muslu ci yàlla itam nag di ñaan musal ko ci mel noonu ñaareelu laaj bi mu ne ndox moo xam ne dañ ko teg ci naaj wi bu mu tàng jër jër jër ndax man naa mën nañ caa laabe mën nañ caa laabe kay ndox moom lii tey ñu mën caa laabe rek mooy noonu nu ko xamee ñetti melo yooyu am ci lu soppiku cafkali soppiku wala xet gi wala couleur bi ñett yooyu ci lan soppiku rek mu tàng mu sedd ñoo ci yem dana mën a laab dana mën a laab la ñetteelu laaj bi mu ne koo xam ne day liggéey ci béréb béréb bi nag lañu jaay kon fu ñuy jaay lay doon mu fay liggéey waaye am te loolu da ciy jëfandiku léeg-léeg te amu ci ndigalul boroom boroom ko ko moom waaw loolu de du ko sañ nag du ko sañ du ko sañ kuy liggéey ci béréb moom la ngay liggéeyee sañ caa lu dul ci ndigalul borom bu fekkee dem na ba jàpp ne mënu ko ñàkk def nag ko wax ne ko man kat dama fii kii te léeg-léeg am yi la naa ko mën a jël noonu rek ko waaw moo man moo di ko man bu nag lu mu ca jël fay ko ndax moom day mën a koy jënd rek day jënd soxlaa kon lu mu jëfandikoo day jënd fay ko waaye du ko jëfandikoo ci lu dul ndigalu ki ko moom ñeenteel laaj bi dana ki mujjee génn àddina ci saxaaba yi kooku di mel ne boroom xam-xam yi dëppoon nañ ci ne mooy ku ñuy wax abu tufayl amir ibnu wasila euh, bi mu génn àddina euh, wuute nañ tuuti ci man at la waaye téeméer téeméer la at ak ñaar daal wax nañ ko ginnaaw gàddaay gi am ñu ne téeméerelu at ak fukk am ñu ne téeméerelu at ak uh, juróom-ñaar am ñu ne téeméerelu at ci téeméerelu at rek abu mooy abu abu tufayl amir ibnu wasila ku mel ne anas ibnu malik nag bu dee ci ci ci ñi gën a siiw moom saxaaba yi gën a xam moom moo ci mujj génn àddina waaye kii lu lu néew néew abu tufail mi mujj mujj mujj mujjee na ko juróom-ñaari at lu néew néew ndax anas ci juróom-ñeent fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay gi ci la génn àddina abu tufail nag at yi ñu wax na ci la génn àddina mu ci gën a jege mooy téeméer juróomeel laaj bi mu ne kuñ raw ko dox ci ginnaaw ilimaan ilimaan sëlmal muy àggale euh, kañ la cee boole kàbbar buy jóg ak kañ la ca ñàkk boole kàbbar loolu de nag jërul sax nag di bàyyi xel jërul di bàyyi xel man na saa buy jóg rek kàbbar waaye ku bëgg bàyyi xel lool nag lañ cey wax daal mooy bu fekke fa muy jóge fi ilmaan sëlmale daa dajanteeg moom moo am lim am ci ràkk nekkul lu tool waaye kon ñaar la ñaar sax la ñaar rek lay ma nekk daa fekk mu am ñaar ñaari rakk daal daa fekk moom mu am ñaari rakk kon day kàbbar mooy buy jóg day waxaale allahu akbar bu demul noona nag kon du du kàbbar mooy day jóg rek te du waxaale allahu akbar loolu rek moo ko tënk waaye nag sax nag di dugg ci détail yooyu def ci wax sañ na muy ilimaan salmare saa buy jóg rek mu ne allahu akbar juróom benneel laaj bi mu ne bëñ ndax buddi ko wala wàññi ko ndax bokk na ju soppi bindub yàlla te bokku ci bokku ci bokku ci euh, budul na da jublu xam nga bu ko jubloo foofu mu doon ko waaye euh, lu mel ne buddi bëñ moom ku koy def day fekk day am lu ko waral ak wér day koy waral lay mën noonu gàttal gi it noonu mais koo xam ne bañum dafa gudd guddaay gu ëpp ni mu baaxoo gudde sañ ne ko wàññi ba yam koo xam ne tam bañum daja ca daa am sikk soo xam ne dindi ga moo ci gën docteur ya koy xam booba koy dindi liñ ci bañ daal mooy li ñuy wax sa di di di di yett yett yett ak ak waa ñu bokkuñ yett yett di sàkkalu yàlla loolu la yonent bi tuddoon mooy ñu sàkkalu yàlla loolu mooy soppi bindub yàlla waaye bu dee buñ boo xam ne dafa gudd guddaay bu bu bu weesu ni baaxoo gudde sañ na ko wàññi bam tolloog ni bañ baaxoo toll ki am lu ko dal ci bañam itam ba dindi ko gën ca moom itam sañ na koo dindi kon loolu ci mpaju lay ci ci ci dugg juróom-ñaareel bi mu ne ko am ay soxna yoo xam ne bokkuñ fuñ nekk te moom xëy na am na kom ci bokkal wala ñu ci bokkal nekk ak ñu bokkalut nekk ndax dana mën a ndax day day war day war ci moom mu yamale mu yamale leen ci liñu ñu tuddee ay euh, foofu duñ duñ ko duñ ko sant loolu ndax loolu du doon lu mën nekk mën a nekk wala du doon lu jàppandi la jàppandi rek lay def la mën nekk lañ ko sant waaye euh, lu mel ne rawatina moo wax ne dañoo ne ci ay dëkk yu wuute nit duñ ko duñ ko sant ne moom mi ngi dëkk Touba ci misaal tudd na Touba tudd Kaolack tudd Dakar foog na bu dëkkee Touba duñ ko sant ne ko ne baagante diggante Touba ak Dakar ak Kaolack ngir yemale ay ay loolu bokkut ak li yombalal ak jàppandal gi nekk ci lislaam kon ñum dëkkalut eh, na def kam kàttanam rek ba di am daal lu mu leen seetli waaye nag du du du du du ci moom mu yemale ak ñim dëkkal juróom ñetteelu laaj bi mu ne ci béréb bi kër yi ci suñu réew yi dafa am ay fajkat yu góor yu jigéen ku ñëwit dañ ko yebal fenn rek góor mën nañ ko yebal ci jigéen jigéen mën nañ ko yebal ci góor nee na ndax loolu mën nañ ko jàpp ngànt góor gi nga xam ne daa ñëw fi muy fajoo jigéen la fekk mu nangu mu faj ko ngir ngànt waaw dañ koy jàpp ngànt rek dañ koy jàpp ngànt ndax wàllu faj moom du sax rek diggante góor ak jigéen waaye góor ak góor sax góor gu góor di faj sax am na lu muy nangu ngàntoo tax mu nangu ko waaye bu ton ngànt du jaatu du jaatu kon ngànt mooy waral góor gu góor di faj sax mu am fu mu sañ a àgg ci moom foo xam ne bu ton ngànt du ko sañ nekk noonu bu fekkee itam day faju si te jigéen rek fa nekk koy faj wala jigéen ji faju si góor rek fa nekk kuy faj loola loolu tam ngànt lañ koy jàppe rek li jaadu nag ci réew yi loolu moom réew yi réew yee ko réew bu ñu nee réew yi mooy ñu jiite réew yi kon ñoom ñoo waroon di di fexe ba bérébu faju bu nekk am fa fajkat yu doy ci góor ak jigéen ci wàllu gone rawatina bu dee wàllu jigéen ndax ñoom am nañ seen seen seen wàllu bopp boo xam ne mbirum jigéen la lu ci bari sax nag moom mooy gën a bari mbirum jigéen moom ay jigéen a fay faral di nekk waaye te li ñuy tuddee gynécologie gynécologue mbirum jigéen la ba léegi ci Sénégal ba léegi ñi fi ëpp ci gynécologue yi ay góor lañ loolu nag doon du lu jaadu moom te waroon fexe ba gynécologue yi doon ay jigéen ndax ñoom mbirum jigéen rek lañuy lañuy yitte wax kon loolu moom waru gaw kilifa yi la kii faju nag moom bu demee la fa fekk rek la fa fekk mënu ci leneen ka fa fekk rek lay mën a dem ci moom juróom-ñeenteelu laaj bi bind alquran raxas ko sangoo ko ndax loolu e, dàqonte wut ak warmaal warmay alquran foogu may dàqonte nañ ndax borom xam-xam yi nangu nañ ko ñu ci ñoom nangu nañ ko naka jekk mm, kon foogu may dàqonte am na ci e, fukkeelu laaj beeg benn ndax ni dafa for dara yëgle ko lu mat at gisul boroom mooy na ko saraxe gis ne kenn gën ko jeeyey mu sarax ko boppam <laughs> bi mu ko saraxee boppam di ci liggéey yàlla dogal mu barkeel nee na xam naa laaj bi nag dese naa dese naa mu mu mu barkeel eh, ndax dinañ miraas alal jooju ak nuñ koy miraas waaw xam nga laaj boobu moom laajul lan ci liggéey ba mu barkeel lu fi dugal mbir lu fi dugal ay miraas ak ak nu ñuy miraas li ñu war a wax mooy sarax boppam sañu ko sarax boppam sañu ko li muy sañ mooy jëfandikoo ko mu doon bor ñaar yooyu bokkuñ jëfandikoo ko te jàpp ni saa borom feeñee da koy fay loolu sañ na ko waaye du dina da koy sarax boppam ñu saraxa yëpp keneen la koy sarax keneen kam koy saraxit bu bor bu borom feeñoon ne man bëgguma saraxit ba tey da koy fay moom moom mi saraxewoon moo koy fay moo tax kon daanaka sarax moom jëfandikoo ko moo gën a wóor jëfandikoo ko sa bopp yow nga fay ko moo gën a wóor nga di ko saraxe moom mu ñëw ne saraxewu ma nga di ko fay na rek waaye naa mën na ko jëfandikoo daal moom bu borom feeñam fay ko waaye mënu ko boppam moom bu ko saraxit keneen la koy sarax Euh, loolu lool lool kon noonu le demee yëgle gi itam nag euh, buñ naan yëgle mooy na ko yëgle ci anam gi gi yëgle lu mel noonu jaadoo loolu ñu ngi ak ci béréb yi ak jamono yi bu dee suñ jamono yi moom lu ci bari ci ay rajo gi mel noonu waru caa mën ñàkk bu dee béréb sàngam la ko fare itam boo ko yëgle ma ko yëgle ci béréb booba itam fa ko fore ndax léeg-léeg nit bu bu réer lee dara bu jàppee ne béréb sàngam la réer mën na faa dellu di ko laaj ña fa nekk kon daal sa bopp def ci num kenn kàttanam rek boo mën a gis borom bu ko defee diir bu yanumaanaa nag te yëgut fenn borom suñ li ko jëfandikoo bu borom feeñee mu fay ko laaj bi ci mujj day wax ne bàyyi ma muy rab rab yi rab yi sax rab yi ci luñ leen ci luñ leen binde mu ne nit ñu ngi ko binde ci suuf jinne ñu binde ko ci sawara malaaka ñu binde ko ci leer eh, rab yi nag lañ leen binde loolu moom luñ mën a dogu ndax yooyu yooyu ñu mën a dogu alxuraan na ko wax moo tax ñu mën nit ci suuf lañ ko binde neenu jinne ci sawara lañ ko binde malaaka ci euh, malaaka ji moom yonent bi moo nu ko wax moo xamal na ci leer lañ leen binde kon lu nu yonent bi wax daal ak alquran moom lañ mën a xam ci yooyu loolu na ci waxul nag moom ay xalaat lay doon ak ak akom um piri am na ñoo xam ne ci ci piri ci piri lañ sukkandiku ba jàpp ne ci ndox lañ leen binde laa jàll di wax ne wallahu xalaqa kulla daabatin min maa fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba am nañu sukkandiku ci laay jooju bu nekkoon ci ndox la leen binde ndox bene lépp luy dox euh, yàlla ko bind ci ndox ku ci boole woon tam li yàlla wax ne jaal naa minal maa i kulla shay'in te dana mën a jàpp loolu waaw dañ ma daañ a jàpp ne it buy wax ndox jubluwu ci ndoxum kese ndax nit it ndox am na ci te suuf la wax ndax ndax ban ba day day ndox kon moom lépp luy dund moom man nees naa wax ne ndox am na ca cosaanu lañ ko bind bu dee euh, rab yi rek am nañu wax ndox rek am nañu ne sax suuf la moom itam ñoom it dellu ci dégg ni ci yenn ay ay alquran waaye ay dégg lee yu mel ne sexe yu mel nii nag sax njëriñ lay bareewut noonu moo tax daanaka bëgguñ sax nit di yittewoo yu mel nii ndax xam luñ bindee rab yi ak ñàkk koo xam ñoo rek xam ko du jëriñ dara ñàkk koo xam du wàññi dara waaw na jërëjëf maa ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa kon mbokk yi lépp loo xam ne si waxtaan la wu jaaroon fii ci al ibadatu wal xidma képp ku ko bëgg a dabu wala mu am lu la ci rëccoon mën nga koo fekk ci sunu chaîne YouTube bi wala nga téléchargé ci Play Store al ibadatu wal xidma lépp lu fi jaar danañ ko dugal foofa jërë ngeen jëf